waaw mbokk yi ngeen suivre sur la TMS TV gis ngeen jinne bi mooy dugg noonu waaye pour dugg ci biir néeg bi moom problème la parce que fii moom defe naa ni am na am na lu ko fiy déranger parce que du du dugg du jàkkaarlook sëriñ bi du jàkkaarloog direction bi bii mooy ñaari yoon ba ñetteelu yoon mais daal moom daal bu duggee euh, day mel ni day am lu ko lu ko lu koy maas lu koy lakk fii ci biir ci biir néeg bi ngeen koy gis nii ci image yi nii ngeen ñu suivre en direct sur la TMS TV di profité di nuyu suñu mbokku internet yi ñuy yu ñuy yu ñuy suivre. Ah. léegi nag yow. Euh, Cerno sonal nga ma de Cerno Cerno sonal nga ma Cerno sonal nga ma Cerno sonal nga ma. nu la sonalee. xamatuma fan laa taxaw ni xamatoo fan nga nekk. waaw waaw. léegi pare ñu génne ko ah. pare nga pour ñu génne ko. du ma ne sama yaram bi yëpp dee na. li nekk fi bëgguma koy jéggi ak cer na. Hmm. gars yi dinaa ko xool. vas commencé léegi kay war nga. ma jàkkaarloo ak yow. parce que léegi kay ci kër gi ngay fas yéene nekk kay war nga mun a xool. il faut ma jàkkaarloo ak yow mais lii affaire yi fii mhm. après. Hmm. <laughs> Ah. léegi pare nga pour ma génne la ci xale bu jigéen bi. Thierno yow sax yii photo bee woon waaye ilaha na gisul bi photo bi moom ngeen gis nii. foto <laughs> bi mooy lëmbee jamono. bi ngeen gis nee euh, gisu ko woon. Euh, jëmm sëñ bi yépp ay allahu la ci bind. Euh, keroog ngeen gis ci anniversaire bi ñu présenté ko askan bi foto bi moo nekk ci internet bi ay millions de doomu aadama di ko commenté te defe naa ni sax am na. prix boo xam ni sëñ bi teg na ko am na neexal boo xam ni war nañ ko jox. ci fan yu néew fan yu néew. Mhm. ki nga xam ni moo gañe waaw loolu aussi defe naa am na solo c'est important. waaw loolu moom. di la ci jaajëfal bu baax a baax. Mhm. Mm, photo bi moom macha allah vite fait bi. ak <laughs> vite fait plus bi. waaw loolu moom dina ñëw ci fan yi néew ñu waxtaane ko. defe naa ni ñàkk koo am sa sa sa kër moom wóorul. ñan ak ñan. yii yii yii yii. lii la photo bi ak man ak ak lii la. <laughs> yii. su ma tawee sax dañ may topp. kii xale bu jigéen bu am avenir la bu am wërsëg la mais gis nga jinne bi daf ko dugg yàq àdduna yàq laay fam tere ko am boroom kër lu mu dugg mu yàq lu mu yaakaar mu tax. doo dem yow noo xamee loolu. nga ne noo xamee loolu. ah yow tamit la xalif général day jinne la king of the king kay moom bu gisee rek day xam. bul tax ma reetaan waay xale bu jigéen ma dafa xiif instant bii. dafa xiif. Mhm. su ba ba tey lekkul semaine yàlla nelawul. semaine nelawul. muy mel ni may nelaw def mel ko cerna jógal. buy nelaw da ko naan. cerna mu ngi ñëw jógal. na waaw damaa bëgg a jàkkaarloog yow nag. waa léegi tournel jàkkaarloo dama bëgg a xeex ak yow combat laa wax de. da nga bëgg waaw. ah waaye man ak yow rek ñaari bu ñu bokk. baax na mais après da nga yebal ñii quoi da nga yebal ñii loolu moo ma jaaxal. non non léegi du ma yebal jinne maa ak yow face à face. yee dama lay gañe instant bi nekkoon. dama sonn maa la mën man kay sonn ma ah yaa ma mën. <laughs> baax na. Hmm.

man maay Ibrahim yow yaay Ibrahim waaw yow yaay toroxal ci yi kon yow yow yaay toroxal ci yi ah! yow yaa ma toroxal waaw xale bi dama ko bëgg danga ko bëgg tey di ko bàyyi non tey di nga ko non di nga bàyyi tey <laughs> tey di nga ko bàyyi. sa bëtu alaaxu yii nga yore waaye yow nga foog ne ma la ragaloon. ah ragaloo ma. maa la ñeme léegi. ñeme nga ma léegi. ba ma dumaa ba pare laa la ñeme. Mm-hmm. ba ma la dumaa ba pare nga ma ñeme. Mm-hmm. am na loo àndal yow. yow nga yow am na loo àndal doo xef tuuti sa bët yi. ma xef man kay du ma xef. déedéet da ngay xef tuuti rek tuuti rek. tuuti rek tuuti rek sa mbaxana bi dindi ko waay ak sa kol bi sa mbaxana bi ak sa kol bi daf may déranger. sama mbaxana ak sama kol daf lay déranger. kenn de njaay. Mhm. fi ku fi ñëw daan amul demal maa ngi ñëw. ñemewu la woon xool maa ngay jàkkaarloog yow mais nag gisuma dara da leen a nëbb hmm. instant bi da leen a réeral gisuma leen gis naa rek lu ñuul rek lu ñuul rek ak yu ñuy sànni foofu rek mais gisuma dara moom dong moo koy gis kenn du ko gis kenn kenn kenn du ko gis kenn moom doo koy gis sonn naa léegi pare nga pour quitter xale bi pour bàyyi ko mu am jàmm. su ma ko bàyyi loo koy jox. lu ma koy jox mooy la. loo koy defar yow. loolu du sa wax. loolu sa yoon nekku ci yow bàyyil doomu jàmbur bi nga xamante ne yàq nga. avenir am may ma ne la duma la garanti dara man duma garanti jinne dara rien du tout. Hmm. waaw. dina tekki de damaa bëgg mu tekki nag damaa bëgg mu tekki. ah yow mi bloqué ko kay boo ko bàyyee dina tekki yow yaa ne ma débloqué ko kay su ma ko débloqué yow après nga nga taal ko mu tàkk. mais yow mi ko kale woon kay boo ko boo génnee ci moom kay nga taal ko yow. dafa yow mi kale dafa rafet tur bi dafa neex Marie Dieng. Marie Dieng yow noo tudd Ibrahim yow sànq danga ma fen nga ne ma moo mag après nga ne avant muy juddu. Hmm. nangam nangam. ba muy juddu jour bu muy juddu laa ko dugg. jour bu muy juddu nga ko dugg. Mm-hmm. fan nga ko duggee ci hôpital ba wala ba ñu ñëwee. seen dëkk seen dëkk moom fan la dëkk di paase Mbuur foofu la dëkk moom defe naa ne boo xoolee jëmmam warul mel ni defe naa ne boo xoolee xale bu jigéen bi war na gën a maanaam jëmmam melul ni dafa rafet maa ko téye. waaw ah, yow yaa changé jëmm ji. kii su ma ko bàyyi ñaari kanam lay am su ma ko bàyyiwu ñaari kanam lay am. boobu yàlla moo ko def ci moom. boo ko bàyyee ñaari kanam lay am. su ma ko bàyyiwul tamit ñaari kanam lay am yàlla loolu la ko judduwaaleel dafa rafet dafa taaru ku joŋee. oh Thierno Moulay Sow yàqal nga ma yàqal nga ma yàqal nga ma yàqal nga ma yàqal nga ma kii bu sañsee damay taxaw di ko seetaan. moom moom xale bu jigéen waaw. bu ñëpp a koy coow. su génnee ñëppay wax ñëpp tout le monde. yi léegi trois heures du matin jot dañoo ngi ci deux heures. sonn naa cinquante et un minutes sonn naa de. waaw léegi nag sonn nga. Mhm. léegi nag dañu bëgg nga bàyyi ko mu am jàmm moom xale bu jigéen bi. yow noo may def danga may dóor. man dama lay lan. danga may dóor. ah boo buggee ñu duma la de. bu dee nanguwoo dañ lay duma de dama lay raamal yaay sama xarit. Cerno sama xarit. naka la Ibrahima. yii est ay dóor walla. Hmm? léegi jógal jógal. déedéet dóoral rekk fi ma tëdd. déedéet man dóoruma la. fii rumande la. man duma la dóor léegi jógal nga fexe génn ci xale bu jigéen bi. waaw fi ma tëdd mun nga maa génne. waa jógal ma tuubal la yow jullit nga walla doo jullit. ki il faut mu nekk ak moom julli ndax dafa jullite. Mhm. Mhm. léegi jógal boo jógee ma génne la ak ci xale bu jigéen bi bu ko defee nga bàyyi ko mu am jàmm. yow nga def ci tax nag ma tëdd nga génne ma. Ah, hmm. déedéet loolu nag mën a ne. <laughs> Eh, Thierno yow da ngaa muus de ma jóg nga génn ma ci xale bi xale bi dem ma dem. waaw. Thierno yow muus nga de. ah muus. yow. kulli mbër. kulli mbër lii de yow rek yaa mën ci man hmm. Hmm. maa ko wax. nga ne. ma ne maa ko wax. nga ne lii. yow rek yaa mën ci man. loolu la yàlla dogal. yàlla la samp. Hmm. na ko fonk bu baax. waaw saa su ne dañuy sant suñu borom. boo ko mun a fonk gën a la dolli milliard par jour. macha allah waaw loolu moom jinne yi. waaw léegi bàyyi ma ma dem nag comme léegi jeex na. déedéet léegi kay bëgg nga bàyyi xale bu jigéen bi mu am jàmm. nga génn ci moom carrément mu mun a am jàmm dellu ak mbokkam yi yow nga des fii. Hmm. waaw nga bàyyi ko mu mun a am jàmm parce que vraiment yàq nga àddunaam. moom ok moom fii lay des ci yow. déedéet moom kay day ñibbi. man maay des ci yow yaay des fii ak man. su ma ko bëggee gis duma ko gis. non moom kay pare nga ci moom yow kay li nga doon am ci moom am nga ko ci moom pour l'instant moom yéen ñaar kay macha allah na jaar gauche nga jaar troit nga bàyyi ko nga bàyyi ko mu am liberté am. des dama koy fatt. da nga ko daan fatt. barke dem xaw naa ko xoj ci balcon bi xoj. ci balkon bi loo ci jubloon. parce que dafa yëkkati lekk bi te mu fàtte wax bisimilah. ah macha allah kon yow jullit nga. man dóor boobu ma ne ko waxaat bisimilah mu wax bisimilah après affaire bi jàll. si kon mbokk xam ngeen ne bisimilah dafa am solo. Mhm. léegi maa ngi dem dégg nga. déedéet fan nga jëm. jeex na. déedéet loolu day yomb dangay génn ci doomu jàmbur bi xaaral xaaral. eh xaaral xaaral xaaral xaaral toogal xaaral xaaral xaaral xaaral eh, eh. maa ngi nii waaw nga ne noo tudd Ibrahima Ibrahima naka Ibrahima noo sant amul sant amoo sant moom moo tudd Marie Dieng. Marie moo tudd Ibrahim. Ibrahim waaw léegi waaw Ibrahim tur bu baax la mais ñu xool liñ ci teg. waaw bu ko defee ñu yeesalaat la dañ lay yeesalaat waaw dañ lay salaat nga mën a génn ci moom xale bu jigéen bi. sa bët yi. dañ lay yeesalaat léegi waxal ashhadu an laa ilaaha illallah. Hmm? waxal ashadu an laa ilaha illa allah laa dëkk waaw mais waxaatal ñun ñu yeesalaat la donte jullit nga dañ lay yeesalaat loolu am na solo waaw waxal ashadu an laa ilaha illa allah ashadu an laa ilaha ashhadu anna muhammadan rasulillahi abduhu wa rasuluhu lamiñ bi taq nga ne hmm? abdu nga ne lamiñ kan abduhu wa rasuluhu hmm. abduhu wa rasuluhu waaw mbook la donte jullit la dañu koy gën a yeesalaat rek parce que xam nga ne macha allah ay jullit la ñu mais parfois ñu def fu kàccoor léegi nag yeesal nañ ko moom jinne bi Ibrahim léegi nag Ibrahima tudd macha allah defe naa amoon na jinne bi ñu tuddee woon fan yii Ibrahima kurtu karta léegi moom ah, ma tuddee ko naka Ibrahima léegi ma teg ci naan. Ibrahima rakin Ibrahima rakin <laughs> luy loolu luy rakkin tàkk ah Ibrahima rakkin tàkk rakkin mooy lan xaw ma rakkin tàkk waaw ah. Ibrahima yow dangaa gaaw xanaa torop lan ak lan nga mën yow yow bu ñu la yónnee fii ak fii fii maanaam bu ñu la yónnee fii ba France ñuy wax weñ weñ waaw weñ buy naaw waaw fiiw laay def du ma dugg avion doo dugg avion bu ma la yónnee États-Unis tamit fiw ngay def. foofu jege na. mbokk xam nga nag jinne yi Amérique ak France ak yooyu du dara ci ñoom xef-xeppi rek ñu dem. picc sax mun na fa dem. picc ngelaw waaw picc ngelaw. walla nga dugg ci dex bi mélangé ak moom ba àgg. waaw gis nga. walla ci géej bi ngay raam di dem wala nga dugg ci ci ci ci ci bato yi wala wala wala wala yenn yi. ngay ànd ak ñoom te duñ la gis. mbokk yi dégg ngeen jinne bi lu mu expliqué Ibrahima. sonn na ci wax nu mu la wax rakintak mule. c'est bon baax na waaye léegi Ibrahima rakintak mule. léegi nag jinne bi dèjà dañu koy génnee ci xale bu jigéen bi mu am jàmm xale bi dellu dundaat nekkaat beneen nit. sonal nga ma. nekkaat beneen nit parce que kii dafa mel ni ku deewoon dekki. koo fi faj génne jinne ci moom day mel ni ku dee woon dekki day nekk beneen nit day dundaat parce que jinne booy dund ak jinne dafa doy waar dafa metti sonal nga ma wap wap wap. Eh, dama bëggoon nga génne ci xale bi nu mu gën a gaawee. naka laay génne. naka ngay génne. bu ma sotti dara de. waaw duma la sotti dara. yaa koy génne. nga yaa koy génne. maa koy génne lan. jinne bi. jinne bi jinne bi di wax ak yow yaa koy génne ci xale bi. waaw. yow yaa koy génne. waaw noo koy génne. nu ma koy génne. ah. nu ma koy génne. ah. ni ma daan génne jinne yi rek. affaire boobu nga nag. boobu buggee ñu ñu def kurtu karta de. bugguma boobu. waaw kon nag génnal génnal ci ndànk kon ci silwise génnal ci sulise ci ndànk nga génn ci xale bi nga may ko jàmm yàq nga laay fam yàq nga addunaam léppam waaw tey heure bi waroon na réussir am boroom kër war a tukki tey yàq nga léppam këri kër ngay waaw kay kon nag mbokk yi gis nga léegi xale bi moom xeesal bi yow yaa koy diwloo xeesal walla tànk yi maa ko yàq waaw tànkam yi dafa yéeme ah lii xeesal la wala nu mu demee tànk yi maa ko yàq yow yaa tànk que ci kaw lañ koy xoole ba ci ci suuf lañ koy jële ba ci kaw nga ne ci suufu tànk yi lañuy ñuy commencé ba ci kaw bopp bi. ah yaa yàq tànkam yi nii. waaye moom dina ko defaraat. ndax moom dafa aay. mais boo génnee li yëpp dina deñ moom da koy defaraat moom dafa aay. waaw hmm. mm-hmm. ah, mbokk yi dégg ngeen bi nee na moo yàq tànk yi kon nag euh, Ibrahima rakin tak mule génnal ci xale bu jigéen bi nu mu gën a gaawe mbokk yi ñoo ngi fi depuis ci depuis le matin ba tey ñoo ngi fi. depuis treize heures ba tey ñoo ngi ci liggéey bi ñoo ngi instant bi ñoo ngi ci presque dem nañ ci trois heures du matin depuis le treize heures ba trois heures du matin ñoo ngi ci waar bi macha allahu kon Ibrahima Rakintak génnal euh, xale bu jigéen bi Ibrahima Rakintak ginna yaltu mbokk yi macha allahu ñoo ngi ci TMS TV. ñoo ngi ci TMS TV ak euh, gu équipe bi macha allah jinne baa ngi génn Ibrahima Rakin tak Ibrahima Rakin tak jinna génnal ci xale bu jigéen bi yaltu Ibrahima rakkintak Ibrahima Rakin tak jinne baa ngi génn. Mm-hmm. Ibrahim Rakintak est en train Ibrahim de sortir donc, la demoiselle. Donc euh, le a mais il a été reconverti encore une fois en mhm. islam. mu jinne baa ngi génn. on lui a donné le nom de Ibrahima Rakintak Moulé. donc mhm. il est en train de sortir du corps de la dame. qu'il possédait depuis longtemps et qu'il empêchait de vivre. gis nga ko nu muy xiiroo. donc et qu'il empêchait tout simplement. d'avoir donc de bonnes choses dans sa vie. donc le marabout lui dit yaltu get out. Yaltu. donc sort du corps de la demoiselle. pour qu'elle puisse vivre en paix. donc le djinn qui a même révélé qu'il a gâté donc tout simplement les pieds, donc déformer un peu les pieds donc, de la demoiselle pour l'empêcher d'être aimée par les hommes. Donc vous voyez comment les djinns peuvent tout simplement donc, détruire la vie d'une personne. Donc c'est djinn qui di vraiment kile très rapide, c'est pourquoi on lui a donné le nom de Ibrahim Rakintak Moulé. Ibrahim Rakintak Moulé génnal ci xale bu jigéen bi nu mu gën gaawee jinn yaltu yaltu yaltu sarga foyra Mm-hmm. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then this very uh, lady who is possessed by a jinn whose name is Ibrahim, uh, you know. And Ibrahim has been converted to Islam, uh, reconverted, converted again another time to Islam uh, by the Marabu Chanamulesa, the king of no, the kingdom, Marshal. And he has given no, no, the name of Ibrahim Rakintak Mule. And you see then. Ibrahima Rakintak Mole he uh, dama ne mu tourné fee ñu bañ leen may. Ibrahima Rakintak Mole he is. Ibrahima Rakintak. <laughs> speaking French. Oh, moom moom xelam yëpp moo ngi ci vite fait bi. <laughs> non la sotti. because he thinks that uh, there's this <laughs> bi laa koy sotti uh, déedéet yow du la sotti vite fait génnal rek. dama mu tourné pour ñu bañ a may ñee publicité. <laughs> Hmm. jinne yi sax duñu wóolu de. jinne yi dañoo garaaw. <laughs> no confiance jinne yi. zero confiance. <laughs> he's afraid of the liquid surux <laughs> ku ñëw bopp ngay jiital bum après nga taxaw dootoo mun dem fenn <laughs> mbokk yi oh, léegi Ibrahima kurtu karta léegi nag génnal ci xale bu jigéen bi nu mu gën a gaawee. bëggoon xam loo wax ci ndaa bi ndaa bi. dootuma ci waxat hmm. moom xam na li ma ko wax. li nga moom a rëcc. laaj ko borom. déedéet man yow laa koy laaj yow doon ko dégg doo ko ko borom <laughs> moom mi ko fi samp di ci toroxal di ci toroxal jinne yi. waaw ah, yow da bëgg ma jaaraat yow da ngaa mus Ah, yow yaa tudd ndaa bi ñun tudduñ ko de. waaw man gisuma leen de mais am ndaal bii li ñu samp fii yow pusuma fii dootuma ci waxat kii xam naa li muy waajal affaire boobu naan nii. vite fait bi. xaw ma ma dëgg takk. Ah, mbokk yi vite moom defe naa ni am na solo te ku nekk war nga ko mën a am sa kër. boobu eh moom buy bu muy seetaan vidéo yi ma maa ngi seetaan ak moom. bu muy seetaan moom vidéo yi maa ngi koy seetaan ak moom. Thierno Moulay day yëkkati kaas benn kaas lay yor kaas benn kopp genre kopp la dëgg la wala dëgg Thierno Moulay. xaw ma bu verte dëgg la wala pare nga ne ko ko kopp mu ne yaa kenn du ma ko def man kilifa laa nag Ibrahim. bu ma ko def. jógal jógal. dama sonn. jógal. jógal jógal dama waaw waaw jógal jógal jógal. waaw léegi jógal jógal. moom. bu la téye day maas. léegi yow sànq da ngaa njëganaayoon sama tànk bi fii. <laughs> yaa ma xëcc. waaw léegi lu tax nga njëganaay sama tànk. parce que yaa ma xëcc. yaa ma fa fale ma laal tànk bi pour ma xool kanam bi. fii tànk da njëganaayoon fii. il faut ma laal foofu pour ma xool kanam bi. foog nga laal sama tànk bi foog te après moom bés bu demee. waaw dina ne waay cer tànk cer nu mu laay saw bi dama ko defoon nii yaa. Mhm. léegi yow. Mhm. génnal xale bi rapidement. ah man di laaj na la naka lay génne kii ma laxasoo laxasoo laxasoo laxasoo laxasoo laxasoo laxasoo laxasoo ba gémmiñ gi dong mooy wax fu mu nekk nii nga bëgg ma cee génne. ba gémmiñ gi rek mooy wax. waaw luy loolu. dama ko laxasu bokk foo tourné dama ko cee laxasu. ah moom da nga kaa laxasu wër. waaw ndigli day metti rek moom moom du mënul sëggalu ndigli day métti rek. waaw léegi nag dangaa laxasu woon day laxasu bii rek laay xool daal bii daal bëggoon naa xam li ci kàmb bii ci biir lan la ah. kàmb gën munoo ko xam indaa bi lan nga ci bëgg a xam moom lay fixé rek loo ci bëgg a xam tiim ko tiim ko ko rek tiim ko hmm. su ma joxee ordre di ko tiim Cerno tey sonn nga nangul tey gëmantu nga. sonn moom mënul ñàkk nelaw guddi. doo nelaw guddi ndeysaan. yàlla la yàlla fay. nelaw guddi dañuy fanaane toog toog fii te guddi na. Mm-hmm. waaw léegi dama bëggoon nga génn rapidement. ah man daal daal naka laay génne de yow yaa ma faalewul ba tey yow ci sa ordre. léegi yow. waaw. nan nga jaare woon ba ngay dugg xale bi fan nga jaare woon. ngelaw. ngelaw léegi da ngay defaat ngelaw nga génn. yee ni ma ko laxasoo mënuma def ngelaw de. léegi nan nga mën a génnee ko ah yaa xam de. kon da koy. yaay génnee. yaa koy wax. waa kon léegi nañ ko sotti affaire yi mu génn. raadu hay ku ma ko sotti ba ma kur feeñ la. fii bu fii da nga fi ñeme kur kenn fii da fi ñeme kur kenn. kilifa laa man kenn du sotti yooyu. Jóob na wàcc. def leen ndànk. de. leen ndànk. waaw léegi def leen ndànk. léegi da génn rek rapidement. kanam ñànk bi yow yàgg Thierno Moulay Sow yéen kii mooy sama xarit kay kii mooy sama xarit. da baab de. waaye ñii moom dañuy xaaw yi rek ñoom yéen moom xaaw yi rek xaaw yi rek. léegi dañoo bëgg nga génn nag balaa ñuy egg fi ñu bëggut a egg ak yow gannaaw bëggoo ñu tooyal la bëggoo ñu sonal la. kon nag génnal xale bi rek benn yoon mu gaaw waaw jéemal génn ci moom Ibrahima Ibrahima naka Ibrahima rakin tak mu le waaw jinna yaltu mu gaaw guddi na Ibrahima ba daanaka guddi na na def lu gaaw nag ah waaw na def lu gaaw na parce que jour boo waxee doo fanaan jour boobu moom da ngay ñëw rek yàllatu ibrahima rakkin tàg ginna ibrahima rakkin tàg génnal nu mu gën a gaawe bokki yi jinne baa ngi génn ibrahima rakkin tàg yàllatu ibrahima rakkin tàg ibrahima rakkin tàg yàllatu yàllatu yàllatu yàllatu yàllatu génnal ci xale bu jigéen bi ibrahima rakkin tàg mule ibrahima rakkin tàg mule Ibrahima Rakintak Moule Ibrahima Rakintak Moule jinne baa ngi génn Ibrahima Rakintak Moule jinna yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu Ibrahima Rakintak Moule génnal ci xale bu jigéen bi yaltu yaltu yaltu yaltu Ibrahima Rakintak Ibrahima Rakintak yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu Ibrahima Rakintak yaltu génnal ci xale bu jigéen bi yaltu yaltu jinna jinna baa ngi génn Ibrahima rakkin tag ci moom génnal ci yaram bi yaltu jinna yaltu yaltu Ibrahima rakkin tag yaltu jinna génnal ci yaramu xale bu jigéen bi jinna yaltu Ibrahima rakkin tag Ibrahima rakkin tag Ibrahima yaltu jinna génnal ci moom Ibrahima rakkin yaltu jinna mbokk jinne baa ngi génn yaltu yaltu jinne baa ngi génn yaltu yaltu yaltu nga ko nu mu yëngatoo noonu ci biir bi yaltu yaltu gis nga biir bi yaltu yaltu yaltu jinne baa ngi génn gis nga ko noonu nu muy dëngatoo noonu gis nga ko ci biir bi nu muy formoo noonu gis nu muy kiiwee noonu yaltu yàllatu yàllatu yàllatu mbokk yi gis ngeen fajum jinne day jël temps depuis depuis treize heures ñoo ngi fii ñoo ngi fii ba trois heures du matin gis ngeen liggéey bi dafa metti day jël temps dafa metti baax a baax macha allah ñoo ngi ci TMS TV euh, le xalif général des jinne la king of the king le roi médecine traditionnelle du monde macha allah. waaw kon ni nga ko waxee rek sëñ bi defe naa ni liggéey bi dafa metti parce que ci suba ba léegi ñu ngi fi te fi mu nii guddi gi xaaj na ñu ngi ci trois heures du matin ngeen ñu suivre su la TMS TV ngeen gis nag <coughs> jinne bi mi ngi mi ngi génn. kii nag Guinée bi Saliou da ko da ko solo lool yàqal ko lu baree baree bari nga gis ni Guinée euh, ñi ngi def ay ay ay musiba ci kaw suuf te jinne nekk na loo xam ni lu doy waar a waar a waar la lu doy waar euh, ku nekk ak euh, li ngay ni la jinne bi di def hmm, dangay gis day dem ba day déformer sax nit ki nga xam ni jinne dafa nekk loo xam ni ñi ngi def ay ay ay ay ay ay ay ravage ci ci ci ci askan bi Saliou. vraiment comme tu l'as si bien expliqué Moustapha il s'agit d'un phénomène vraiment particulier et extraordinaire ce que les djinns sont en train de faire ce que les esprits sont en train de faire à la population humaine parce qu'ils peuvent déformer leur vie, déformer donc euh, euh, quelques parties du corps donc de la personne, comme cet esprit, ce qu'il a fait, Ibrahim Rakintak Moulé, donc euh, qui a été reconverti en l'islam par le Khalif général des djinns, Tcherno Donc il a déformé les pieds donc de la demoiselle tout simplement pour l'empêcher d'être admiré et d'être aimé par donc les, les, les personnes, par les hommes. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment difficile. Maintenant, le marabout l'a reconverti en l'islam et donc euh, essaye tout simplement de le faire sortir du corps donc, de la demoiselle. Il est en train de sortir, mais ça prend du temps parce que bon, il a toujours vécu avec la demoiselle. Depuis longtemps, il est dans son corps. Donc pour le faire sortir, ça prend une durée. Donc le marabout qui vient de vous rappeler que nous sommes ici depuis 13 heures. Donc depuis 13 heures, nous sommes là. Et là, il est exactement 3 donc, euh, trois heures passées nous sommes toujours là parce que on a affaire avec des esprits et le fait de travailler avec des esprits ça prend une durée Donc c'est pas facile de leur faire sortir. Donc c'est un difficile. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then this very lady who is possessed by a jinn uh, whose name is Ibrahim Rakin Takmule right now because has been converted again to Islam by the Marshal, the king of the king, Charno Moleso. And then right now you see uh, the jinn is trying to get out from the body of this very lady, but it is very hard for him to get out once for all because has in the body of for him to get out right now. The Marabu was saying you that you know we've been here since one o'clock, one, one a.m., one p.m. Oh, sorry, and we're still here till three a.m. right now because it is very hard to work with spirits, with gins. It's not so easy to do it because we've been here for so long a time, for many hours, but we haven't finished yet because it is very hard. You see then what the spirit is doing, touching his head, touching the head of the lady, saying hoo hoo, crying here and there, and telling the marabu not to use the liquid with faith. You see then what is happening. I let the floor to the marshal, the king of the king, uh, he will then just continue with his healing session and try once kon ngeen di gis euh, Guinée Ibrahima ku Rakin Tak Moulé mi ngi nii jàkkaarloog le xalif général le maréchal le bourreau des dëmm le roi médecine traditionnelle internationale the king of the king ki nga xam ni lu àll bi lëndëm lëndëm mu xuus jaar gis ngeen jinne bi mi ngi génn mi ngi génn euh, ñi ngi ànd ak euh, man bi nga xam ni mooy Bassène du ngeen ko gis ci image yi mais moom moo nekk ci ci ginnaaw également kii nag ngeen di gis nii ci image nii Guinée bi da ko yàqal lu baree baree baree bari waroon na fi dem Europe affaire yi kale am na fi visa ambassade bu France affaire yi kale euh, am na fi ñu baree bari ay kilifa yoo xam dañuy ñëw boo ko jël soxna affaire yi kale ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Hmm. nga ne. su ma génnee. waaw. da ngay wér toog moom kese kenn du fekkee nga wax ko ay secret dégg nga. waaw. am na loo ko war a wax yaa ngi koy denc. soo génne. waaw ndax dafa waroon dugg avant ma koy tànc. dafa waroon dugg avant nga koy tànc. waaw mais dama ko tànc moo tax jàkkaarloo mhm. waaw maanaam soxna si dafa waroon dugg. avant ko koy tànc. jinne bi di manifester wu mais jinne. waaw waaw mais. ah. sama biir. biiru kan biiru nit wala biiru jinne ci suñu biir kay waay yow des na waaw léegi génnal amuñu temps nag bul ñu yow mu ngi nii dëgër këcc làmbal këcc la def këcc tout këcc léegi génnal amuñu temps rapidement moom laay toj nii xanaa gisoo li may liggéey damay liggéey yow liggéey nga ma sant mu gaaw damay toj tout lu muy gonfale yépp ma dindi ko lan moo tax mu doon gonfale xaw ma air bu bari rek man la air air air air air bu bari. air bu bari air bu bari mbokk yi gis ngeen affaire jinne yombul de. Thierno mm-hmm. sonn naa nag sonn naa waaw léegi ma rek yàlla nag da ngay génn man man nag wax dëgg yàlla affaire yaa ngi ma bëgg a kii ah. waaw sonn naa de Thierno parce que non Thierno dama sonn de. waaw léegi génnal ci xale bu jigéen bi bu ñu sonal nag. non man maa sonn yow yaa ma sonal. man sonaluma la dara. waaw yow yaa ma sonal. kon génnal yow yaa ma xëcc ba ma ñëw fi nga may na dama laa sonal. waaw fu ma la sonalee. waaw kon génnal doomu jàmbur bi. waaw waaw parce No, no, you're not part ah gis ngeen mbokk yi jinne baa ngi baab sëñ bi de waaw ah, mi ngi koy lakk ay anglais di ko wax sama jigéenam la waaw ah, waaye du tee lu mu nekk ji loo nekk jigéenam jigéenam ah mbir mi am na fu muy toll il faut ñu utiliser vite bi de waaw parce que li sëñ bi di wax rek y pas de temps nga ne sama tànk yi la. ma ah. ko temps amul. Eh, loolu laale sama tànk yi. lan moo ci ne. ne ko temps amul de. mais waaw léegi lu tax ngay raay sama tànk yi. Ah, dama ko war a raay rek yow kilifa nga dañ la war a def nii. xanaa wax day jeex. <laughs> jinne bi yaramam neexul de. donc ma tojale kay sama yaram lu muy def ba neex. nga ne. tojal nga sama yaram mënatul neex mënatul neex. seen léegi génnal ci xale bu jigéen nu mu gën maa ngi def li ma mën maa ngi ma mën. waaw jokkal. maa ngi def li ma mën de maa ngi def li ma mën xale bi ci sax dafa sonn dafa gëmantu bëgg daa xiif daa mar naan. dafa xiif dafa mar léegi boo génnee ci moom dinañ ko ut jox mu lekk mu naan. ay waay ñàkk naa jabar waay ñàkk naa jabar waay ñàkk jabar waay ah moom xam naa ne fi nga tegoon xale bu jigéen bi moom sore man dama ñàkk jabar bu baax bu rafet waaw góor koy am ñee naa la li yàbbak Cerno Cerno maa ngi jooy de ngir jabaram cerno jël nga sama jabar cerno jël nga sama jabar ah mu ngi jooy de cerno jël nga sama femme waaw waaw jël naa ko de pour nga bàyyi ko mu am jàmm sama femme sama femme sama femme sama femme sama femme sama femme sama femme yaltu yaltu génnal yaltu génnal ci moom yaltu yaltu yaltu génnal ci xale bu jigéen bi yaltu defal ko yére bi yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu génnal ci xale bu jigéen bi yaltu yaltu yaltu yaltu go ayiddina sarga foyra sarga foyra foyra foyra foyra yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu génnal ci moom yaltu yaltu yaltu yaltu demal demal yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu demal yaltu demal demal yaltu demal yaltu demal demal demal demal demal bàyyi naa ko. waaw génnal. bàyyi naa ko yaltu yaltu yaltu. yaltu yaltu. yaltu. yaltu yaltu. mbokk bu nit ki daanoo ndeysaan dañ foog ñu defar ko. bàyyi bu nit ki daanoo du ànd ak sagoom. bàyyi boobu du doon moom jinne bi. jinne bi lay doon ah. moo tax gis nga bu nit ki ah. daanu dañ lay wodd ba nga defar la ah. macha allah bañ sa cër yi feeñ kanam gi lay jógee waaw yaltu kii kay da jàpp kanam gi kii kay du kanamu xale bu jigéen bi kanam xale bu jigéen bi kanam kanamam kanam gi dugg jël sa kanam changé ko indi la kanamu góor wala doo ko gis tey yàltu doo waaw génnal ci moom rek nu mu gën a gaawee xoolal nu muy xullee bëti yàltu yàltu altu mbokk yi ñoo ngi ci trois heures du matin. Euh, kanam bi doo ko gis trois cinq. bientôt quatre heures du kanam bi ko teg bët lu tax du ma ko teg bët. lu tax. xaar ko mu nelaw ba yeewu ci kay gis taaram. waa génneel ci moom rek. Cerno sonn naa. jeex na waa léegi génnal. jeex na génnal nu mu gën a gaawee. jeex na waaw génnal. génn génn na déedéet génn goo de. génn naa de. waaw ana nga génnal. génn naa génnal bàyyi xale bu mu. génn naa bàyyi naa ko. dem na. waaw génnal na dem amul fii ngay resté fii ci kër moom xale bi dem na maa fi des. génnal. xale bi dem na. xale bi dem na. maa fi des. xale bi fu mu dem moom. Hmm? Hmm? dañu wax nga génn ci moom nga génn ci yaramu xale bi nga bàyyi ko moom yaramam moo nag waaw man génn naa. génn nga. waaw. <laughs> waaye dama koy sojloo sax après. danga koy sojloo. Mm-hmm. lu tax nga koy sojloo. neex na damay fayu may fayu damay fayu damay fayu ba ma ko nelawloo mënoon na nelaw ko duma fi ñëw tey. danga ko nelawloo. Ah. mu bañ. mu bañ yàlla moo ko fëgg dafa am ku mu yónnee mu ne ko demal nga yekkee mu dem ci la xaalis bi dafa war a am fu mu war a dem suba. Hmm. daa fàtte xaalisam ci xale bu jigéen bi. te pourtant xale bu jigéen bi nee na ko jël nga sa xaalis mu ne ko waaw 2 heures du matin xaw ma 3 heures la ko yónnee xaw ma mi nuy nekk sama xaalis des na ci yow dëgg la de fenu ma boo bëggee ma woo ko léegi mu ñëw fekk si la nga lañ ko. waaw après après di nga ko woo mais génnal ci moom bul jël suñu temps nag. génn naa. Cerno génn naa yow foog ñu defal la affaire parce que jinne bii ni ma ko gisee nii daal foog ñu sonal ko foog ma def ko vite fait ñu ñu defal ko ay daal. parce que vite wax de. génnal ci xale bi laa wax. man Ibrahim Rakintak. waaw. man vite fait man may vite fait nga may defal vite ah waaw dama lay defal jooni jooni vite fait volcan. ñi ma war bari na de. volcan de xam naa ne lu garaaw la volcan moom. ñi ma war bari na de ñi ma war bari na ñi la war dañoo bari. waaw c'est trop. yaa ngi leen di doog gis. non non non ñooñu doo leen gis laa ilaha illallah muhammad rasulillah ñoo xam ne doo leen gis ñoom ñoo lay gis mais yow doo leen gis <laughs> fes dell ci kër gi ci kaw ba ci suuf ci buntu kër ga la ñuy commencé ba ci kaw ci buntu kër ga ba ca kaw mm-hmm. yow booy dem am na ñoo fi bàyyi waaw booy ñibbi am na ñoo fi bàyyi am na ñoo nga dëkk am nga ñoo fa baax. waaw. maa ko wax. kooku yu jinne baa wax de. fii buy ñibbi am na ñu fii baax ci buntu kër gi ba ba ci kaw. fa mu dëkk tamit am na ñu fa baax bu demee fekkat leen foofu ñooy fanaanoo su demee mu jox leen compte rendu yi lay xaw ci kër ga yëpp ñoo koy jox cer Thierno Moulay am na sax ñu la fay fekk. leer baal sama tànk bi <laughs> eh xoolal bu ma fontoo dama bëgg nga génn ci mhm. tax nga laal ko ci xale bu jigéen bi nu mu gën a gaawee génn naa nga wàcc jinne bii nag mbokk yi foog ma defal ko bagage mhm. hmm. foog defal ko bagage soxoroo dama bëgg génn ci moom bu amuñu temps bul perte suñu temps ah dindi sa dàll yi pour nga deg fi man génnal nu mu gën a gaawee amuñu temps bu ñu dofloo bu ñu gololoo du ñu sa golo génnal ci moom laa nu mu gën a gaawee gis nga temps bi nu muy jël ah mm-hmm. nga génnal ci moom nu mu gën a gaawee Ah, waaw waaw parce que da ngay tuub si moo tax. sa bët yi moom. léegi da nekk sama taalibe moo tax nga ñeme ma mm-hmm. que am loo la. waaw léegi da ngay nekk sama taalibe moo tax. garaawul. waaw léegi waaw léegi génnal kii nag ñu bàyyi ko mu mun a am jàmm mun a lekk. fay naa ko de. waaw mais léegi da koy yëkkati nga dem ma dem rek. déedéet. génnal ci yaram bi. yaram bi bu mu set wecc. waaw génnal ci yaram bi doo waxati ci gémmiñam nga bàyyi ko mu tranquille muy wax ak man normal yow nga doo waxati ci gémmiñu xale bu jigéen bi waaw bul jël suñ temps nag bugguma nga waxati ci gémmiñam nga génn ci moom nga bàyyi xale bu jigéen bi mu nekk normal ñun ñu wax ak moom yow nga def ci c'est tout. naa la. waaw loolu lañ bëgg nga génn ci yaramam ba mu set. waaw léegi nag ñun ñoo ngi lay raay raayal de bu yàggee rek du ñu du dañuy dañuy jaxase de. Hmm. waaw lu leer laa la wax nag. waaw kon nag defal lu gaaw nga génn ci moom nu mu gën a gaawee am na lu ma bëgg a wax yow weñ bi doo weñ <clears throat> jógal jógal nga génn ci moom nu mu gën a gaawee ah dama mbokk yi kii nag foog ñu defal ko affaire de utiliser kii bi ndax moom diine bi dafa xaw a dëgër bopp nag dafa mel na bëggul génn ci yaramu ndaw si donc yàgg na fa yàgg boo xam ne ne bëgg na ndaw si donc bëggul génn moom mu ngi mu ngi lëëree naan damay génn mais génnagul ba léegi donc il faut def naa ñu defal ko bagage parce que vite fait bi muy bañ daal defe naa ne il faut ñu kiyal ko ko ndax mu mën a génn benn yoon Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, il est donc 3h30 du matin. Nous sommes avec un esprit très têtu qui ne veut pas sortir du corps de la demoiselle. Et on sera obligé, donc le maréchal sera obligé d'utiliser donc le liquide vite fait pour l'inciter à sortir une bonne fois pour toutes, parce qu'il s'agit d'un esprit très têtu qui ne veut pas sortir. Donc on voit le marabout qui prépare son liquide vite fait pour Dear ladies and gents, we're having a very stubborn spirit, not willing to get out from the body of this very lady. So now uh, the marabout is trying to use the liquid vitfe to make him get out once for all. You see then the spirit saying, oh yes, wait, wait, I will get out. But he's lying very still. and then the marabu is looking at him trying to see whether he will get out or not Moustapha mu mel na jinne bi dafa ragal liquide vite fait bi donc kii nañ préparé nañ pour bu ko ko sotti mu ni non nañ ko bàyyi dina génn ñu xool ba xam lan lay def mënoo nelaw mënoo nelaw te génn ko yow kay génn ba pare kay door a nelaw waaw ah, naa ni mënagul naraw de tant que génnul moom du naraw te fii moom ku fi ku fi ku fi dugg ah génn fi noonu <laughs> mbokk yi dégg ngeen ci ne bi mooy wax ak euh, caméraman boobu di Bassène nee mi ngi koy niit rek mi ngi koy niit rek nee mi ngi xawee sutura jabaram kulli hmm. te ngeen jinne bi mooy wax noonu ngeen ni suivre image yi noonu ci la TMS hmm. hmm. dama lay laaj rek waaw parce que am na ñoo yónni chaque jour de <laughs> yooyu bàyyi affaire gars yi ah. <laughs> Saalum jinne bi mu mel ni dafay tourner autour du pot di jéem a maanaam jéem a jéem a bëlëf mais defe naa ni day guddal jël rek ci vite fait bi la ñuy mujjee xam naa ni ci vite fait bi la ñuy mujje génn naa génn naa. génn wala doo génn. waay waay waay waay waay waay waay waay waay naan naa ko bàyyi ma génn naa génn naa naan naa ko naan naa ko génn naa maa ngi génn maa ngi génn ah? maa ngi génn ah? maa ngi génn nañ ma bàyyi ma génn nañ ma bàyyi ma génn nañ ma bàyyi ma génn dañ ma jàpp dañ maa jàpp dañ maa jàpp mbokk yi nga ne nga ne tey na dem ma dem dégguñu ñu nga wax de bés ni ki tey maa ngi dem dégg nga bàyyi leen ma nag damay dem day bés ni ki tey maa ngi dem fan nga jëm ci Thierno Moulay Sow. amuloo foo jëm de fii ngay des de. Thierno Moulay Sow laay dem ci Thierno lay Sow. waaw ah, moo tax ma ne fii ngay des. Ah, xaw ma de ci Thierno lay Sow rek laay dem. génn nga ci moom nga wala génnoo ci moom. may waajaat de yow Thierno am na loo may waajalaat mhm. dinaa dem dinaa dem ka toog nii sax ngaa am jàmm yow danga ma cee laalal waxal mooy dafa xiif moom mu ngi commencé lox parce que dama koy tàggu dama koy tàggu yombul de kon gis ngeen affaire yi mbokk yi bët na ba pare quoi te suba dañoo war liggéey si waat aussi. mbokk yi mu mel ni guddi na liggéey bi yombul gis ngeen jinne bi rek presque depuis deux heures de temps ñi ngi nekk ci moom te ba léegi parewul ngeen gis ni kon liggéey bi nekk na liggéey bu am solo mais nekk na liggéey bu metti lii yëpp nag ngir jàppale askan bi jëmale également réew mi ci kanam defe naa ni loolu amul njëg amul prime maanaam kuy def loolu même boo ko joxee ay milliards amuloo njëgam ngeen ñu suivre nag su la TMS TV. man moo des. man ci lan.

lan moo la dese ah. waa nelaw ma dem léegi nelawal nga génn mu gaaw nelawal nga génn ci moom. non du ma nelaw fii <laughs> fële nga may teg ma nelaw. mu ne. <laughs> du ma nelaw fii. kii nag foog ma defal ko affaire de yow. waay. waay. dina bu mbaame la nag foog nga defal ko foog nga kaan. dangay génn wala doo génn. eh da génn wala doo génn. Hmm. nga parfois nga daje gi ne wala kaana day jël sa temps. Hmm. da génn walla mënoo génn. nama bàyyi cette fois-ci je sors na ma bàyyi na ma bàyyi ma génn sama loxo bi dam dam na sama loxo jabar bi de dam na sama loxo jabar bi dam na sama loxo jabar. mbokk yi feeb yi garaaw na am am na solo gis nga biñ ko ko sottee defe naa ni ci la lu baree bare saafarawu parce que sànq ba léegi sëñ bi mi ngi taan ak moom ci nu ne muy tourner rek autour du pot ne génn danaa génn danaa génn ba poussé sëñ bi mu mujj a génne vite fait bi te vite fait moom ku ko xam-xam ni fii lay tàngee waaye fii lay seddee kon vite fait bi defe naa ni am na importance am na solo ah Saliou bu mën a dara wallaahi bu ma dindee sama yére bi Thierno. Mm, chers internautes, chers donc finalement le maréchal a été obligé d'utiliser le liquide vite fait pour inciter donc cet esprit à sortir du corps de la demoiselle parce qu'il s'agit d'un esprit très têtu. Donc il n'a pas voulu sortir facilement. Donc le marabout a été obligé d'utiliser le liquide vide fait pour le faire sortir. Donc vous voyez les grimaces qu'il est en train de faire cet esprit, parce que c'est le vide fait qui est assez puissant, donc euh, qui, qui l'oblige à faire ces genres de, gestes, ces genres de gestes du moins, à s'éternuer par-ci, par-là. Voilà, donc c'est vite fait, bien fait, donc un liquide très puissant qui incite les esprits à sortir une bonne fois pour toutes. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then the Marabu was obliged, the Marshal Chernomule, so to use the liquid vitfe to make this gin out from the body of this very lady. You see then the spirit is saying, I'm getting out, I'm getting out, mangi them, mangi them, I'm getting out, crying even, so as to get out from the body of this very lady. He's even crying, you know, and then getting out from the body of this very lady. You see then. The spirit is crying, crying, and crying again, trying to get out from the body of this very lady, saying, Mind them, mind them, I'm getting out, I'm getting out. Uh, let's listen what will happen after. The spirit is doing actions. Don't want to say the spirit is a past. l'esprit est en train de faire des actions pour sortir du corps de la demoiselle une bonne femme. Eh, bu ñu fonto génnal Thierno Moulay Sow a utilisé. génnal lu mu gën a gaawe. un liquide très puissant donc. yàlla qui oblige les esprits à sortir. des corps qu'ils sont. demal aywa aywa yaltu génnal génn wala mënoo génn ba tey ah ah waaw demal génn demal sa amul génnal génnal nga des fii génnal mbokk ba léegi yéen a ngi ñuy suivre ci la TMS TV mu mel ni 4 heures presque bu jotul aussi jege na léegi mu jot ngeen ñuy suivre toujours ci la TMS TV ak le xalif général des Djinns. plus de de temps. Mhm. te defe naa ni ci suba ba léegi ñu ngi ci waar wi ba léegi noppalu amul ñu ne ci jinne yi ci suba ba léegi. ci moom. waaw ah jeex na génnal ci moom laa nga ne jeex na jeex na de loolu moo jeex bàyyi naa ko nga ne bàyyi naa ko bàyyi nga ko Diop mhm. kii foog ñu sonal ko foog moo summi sama jardineer bi balaa mu yàqu nee na bàyyi na ko waaye dafa mel ni ba léegi ba léegi day lëre rek day tourner autour du pot. xool foofu génnal ci moom man bu ma summee koo moom musiba laa def waaw génnal moom nu mu gën a gaawee. ah. waaw bu ma nga gaaw génn ci moom. xam naa sëñ bi bu simee ko moom. Come. ñu koy tout cela ñu def rek dafa gudd lu bari sax commencé sax. kenn naaj cerno soo génnee doo wax ci gémmiñu xale bi da ngay génn complètement xale bi ñu ñëwaat mais doone génn naa ko defek fekk wax ci gémmiñam loolu génn am na foofu xale bi dafa liw de. waaw génnal am lenn loo may def ak kot. a doy waar mooy sañ ma fatt xale bi de. waaw génnal mooy sañ ma fatt xale bi. yow am na benn instant xaw naa fatt. génnal ci moom rapidement. ok génnal ci moom. ok soo génnal ma sumeeku te su ma sumeekoo day métti. yoo dama bëgg génn ci yaramam bi. carrément moom mu nekk. nga liggéey bi nu méttee. mu gaaw mu gaaw mu gaaw. mu gaaw. Hmm. mu gaaw man kay sonn mu gaaw. nga soog a yeewu laa wax. mu gaaw. nga soog a yeewu nag. te yaa ngi commencé jóg. mu gaaw. nga temps bi ñu ciy jël. ñun ñu suivre sur la TMS TV. mu nekk liggéey bu metti boo xam ni day jël temps ci benn jinne rek mën nañ ci jël cinq de temps trois heures de temps quatre heures de temps sëñ bi dem na ba jël yeneen yére mi war a pour jublu ci jinné bi pour mu génn parce que sëñ bi dem na bay simeeku waaw te gis nañ ko ba sànq ba léegi jinne bi day tourner autour du pot ba léegi day tourne autour du pot léeg mu ne la génn naa léeg mu ne la waa xaaral léeg mu ne la sama kanam gi day saxaar. génnal te damay ragal nag boo génnulee moom sëñ bi dina la defal yeneen bagage yu gën a tàng vite fait bi. ba léegi yéen a ngi ñuy suivre. sur la TMS TV di télé bi nga xam ni mooy feeñal lépp lu nëbbu woon ci ay programme am yu am solo buñ ko waxee nag jëm ci émission bu mag bi nga xam ni àdduna yëpp moom la ñuy bàyyi xel saa su ne muy li ci jinne te sëñ bi di ko def euh, alxamis bu ne ñu koy diffuser le vendredi mais jëm ci également lu mel ni petit matin nga xam ni soxna Mati moo koy animé jëm ci yeneen ay programme également waaye nag loolu euh, rappel la woon rek parce que ñi ngi fii ci kër xalifa général des Djinns le maréchal le bourreau des dëmm le roi médecine traditionnel international the king of the king pour que jinne bi mën a génn ci xale bi waaye boobu ba léegi ñi ngi def ay courte carte ñi ngi def lu ne waaye mu mel ni dafa xaw a dëgër bopp ba sëñ bi sax euh, génne woon na yére pour simeeku waaye jox na ko ay garantie ne ko ne dina génn ci moom moom ngeen di suivre ni ci image yi mbokk yi ngeen xam ni liggéey bi dafa metti liggéey yombul lu ngeen fay rek même su fekkee ne ay milliards la amu leen payam parce que liggéey bi dafa metti liggéey boo xam ne doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg boole ci saa su ne xaalis bi ñu lay jox nga koy jëndee ay sarax lu mel ni ay nag ak yeneen defe naa ni liggéey bi liggéey bu méttee métti la Chers internautes, chers téléspectateurs, vous voyez donc l'esprit qui est en train de sortir du corps de la demoiselle, un esprit très têtu qui nous a vraiment euh, coûté un peu cher parce qu'on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec euh, cet esprit. Donc cette séance de guérison qui a duré des heures et des heures et le marabout a été obligé d'utiliser le liquide vite fait pour l'inciter à sortir. Il était même prêt à se changer, à utiliser un autre habit pour ne pas salir son habit. Donc euh, le Moubou Diazner, il a été donc obligé de sortir l'autre habit donc, euh, donc, qui est tout simplement dessiné en tigre. pour essayer de se changer et de pouvoir vraiment affronter ce djinn une bonne fois pour toutes, cet esprit une bonne fois pour toutes. Mais l'esprit a dit qu'il va sortir, donc on est en train de voir, y a une séance d'observation pour voir s'il va exactement sortir. Donc avant que le marabout se change une bonne fois pour toutes et en essayer d'en finir avec cet esprit assez têtu qui a duré vraiment avec nous. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see saying that he doesn't want to get out from the body of this very lady, but he will get out by hook or by crook because the Barabu Charnamulay so used his liquid vitfe to make him get out the body uh, of this very lady. You see then what the spirit is saying, Ashadu la ilaha illallah. Ashadu Muhammad Rasulillah, Ashadu la ilaha illallah, Ashadu Muhammad Rasulillah. ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan rasulillah wasalaam dem na ma dem the spirit trying to shake the hand of the marshal, the king of the king. Hmm? man la Ibrahima maa ngi ñëw ci yow xale bi mu ngi dem maa ngi ñëw ci yow waaw. Hmm. génn naa nag maa ngi dem. baru mbër waa daan ceernoy mbër waa daan jine bu ñëw mu jàggiruur mbër waa daan ceernoy mbër waa mbër waa daan mbër waa daan sunu sëriñey mbër waa daan jine bu ñëw mu jàggiruur mbër waa daan daan ceernooy mbër wa daan jinne tawu ko jinne jaaxalu ko kookooy mu lay saw jinne tawu ko jinne jaaxalu ko kookooy mu lay saw lu jinne ngand ngand lu mu ponkal ponkal ceerno jaag gi ruur mbër waa daan sunu sëriñey mbër waa daan waa daaru laay seede leen lii mbër waa daan sunu sëriñey mbër waa daan lu jine dëgër dëgër bopp kenn no jàggi ruur jinne franc-maçon moo ci ay mbër wa daan mooy toroxal iblis ak njabootam mbër wa daan sunu sëriñ ay mbër wa daan dëmm yi amatuñu ndam dëmm yi amatuñu ndam ndax sunu sëriñ kenn mooy mbër wa daan mbër wa daan nee leen mbër wa daan lu mu lëndëm lëndëm lëndëm kenn day xuus jàll taalubeem dañuy xuus gaal ay soppeem dañuy xuus gaal ceernooy mbër waa daan ça va lu ma fi indi sax. waaw loolu laa bëgg nga laaj ma dama dama lay orienté ma ne. Mhm. fan yii lekkuloo. waaw instant bi yaa ngi lekk bu baax macha allah. Mm. Ah? Mm. bu baax sama yaram bi kay moom mu ngi mel ni àddina day metti rek. ok. Mhm. mais mais fan yëpp lekkoo woon quoi. déedéet. mais fi mu ne nii commencé nga lekk. waaw da nga xiif instant bi. trop. Mm. maa xiif damaa mar damaa sonn damaa bëgg a nelaw. mais xamuloo lan moo la fi indi. moom laaj naa ko mu ne après lañ ciy wax. ah man defu damaa def dara démb ba ngay teg film. Ah. waaw. <laughs> mais man damay sant yàlla fu ma nekk. waaw waaw bu baax sax. jàmm bi sant yàlla waaw man yàlla laa gëm de. Mhm. damay sant yàlla bu baax a baax. Mhm. kon dina baax. waaw moom lay ñaan yàlla de mais dama bëgg a xam lu ma fi indi loolu laa bëgg mu wax ma ko moom. Ah, ok séddee yàlla kii séddee la. yow ba xaaju guddi démb. man maa ngi woon kii wax na ma ko ma ne ko loolu mënu nekk du dëgg wax naa ko du dëgg. ah bon yaa ngi <laughs> wax naa ko loolu mënu nekk ba xaa jagudi. man du man du toroxal nit ku ñuul du toroxal doomu aadama. Mhm. mu wax na bi dafa dem. Ah, fi bàyyi.